dénkee mbindaan yi seen doom yi maanaam dañuy dóor seen doom yi di leen di toroxale di leen di mérital bëri na ñoo xam ne loolu la ñu wax waaye nag li am ba desall mbay jëng mi nga xam ne ab psychosociologue la nee ay jànq yoo xam ne kenn waajulu leen ci anam bi nga xam ne moom la ñu war xale yi Assane Samb journaliste xëy jël xalimama nee na tamit bu dee ñoo ngi joxar bi baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy jànq yi wax ne dañuy amal maltraitance ci ñi nga léeg-léeg tamit maanaam danañu war a fayeeku duñu fayeeku normalement yéen kaay gi de la turbina bàyyi mbir moomee nag wax ci kër gii di posto ak nag milliards yi nga xamante ni moo fa nar a naax saaye te amul kenn ku ñu joxat baraamu tuuma ne moom la Sénégal Airlines ñaata milliards la ñu fa luubal te ba léegi waxuñu kan la ñaata milliards la ñu fa luubal ba léegi waxuñu kan la chemin de ñaata milliards la ñu fa luubal maanaam ñaata milliards la ñu yàq ñaata milliards la ñu yàq maanaam ci kër gii di posto wala Sénégal Airlines wala ICS wala chemin de fer ñaata la te nag ba léegi amul kenn koo xam ne nee na ko yow mii yaa def giraawaale li nga xam ne nag moo tax milliards yooyu nag daa di naax saa yi mooy yorin wu bon wi nga xam ne yor nañ ko kër yi yéen kaay gi de la réveil quotidien wax ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal jigéen ñi nga xam ne ay cadre lañu bokk ci benn bokk yaakaar ñoom nag nee nañu Macky Sall ci boppam dafa war a présenté wu ci atum 2024 yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex duñu xibaar naan ñu lu waay doon jaay léegi tey mu lamba Ousmane Sonko suba la ñu koy déglu suba ci alxames ji ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr waaye nag li nga xam ne am na ba de Sall Ndakaaru Njaay jël job gi foo xool gis li nga xam ne mooy takk der yi mën na la gis nga gis nga mën na la gis nga takk der yi nga xam ne ñoo nekk ci Ndakaaru mën na la na dayo police gendarmerie bas ñi nga xam ne sax ñooy sapeur pompier mën na ñoo ngi ci Ndakaaru mbedd yeeg ruq-ruq yeeg rond-point yi ngir nag waajal li nga xam ne mooy audition Ousmane Sonko waaye nag bu dee police ak gendarmerie ñoo ngi ci mbedd mi di waajal déglu Ousmane Sonko ñooñu Ousmane Sonko ñoom tim te duñuy nelaw de ñoom tim bënguñu benn yoon seen yi mën na la gis nga takku nañu ba taxawa ngir na gunge ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci diwaanu tribunal mën na la xale yi nag foofu ñu dee mboolem ñi nga xamante ni nag ay responsable coalition Yewwi Askan Wi lañu te nekku ñu woon Ndakaaru ñëw nañu Ndakaaru ki nga xam ne sax mooy Déthié Fall xam ne ci bitim réew la nekkoon dafa dagg yitteem yépp daal di ñëw taxawa yéen kay gi de alerte xëy dañu xibaar naan ñu déglu Ousmane Sonko bi naruta yomb de jamono ji nag mën na lay gis nga gis nga Ndakaaru jamono ji kenn no yeetul Sénégal no yeetul yéen kay gi de l'Observateur nee na lu jëm nag ci mandat de dépôt Ousmane loolee kenn xalaatu ko maître Babacar Niang nee na nag mën a la pëccëxoo am ci réew mi arrangé wul Ousmane Sonko waaye tamit arrangé wul Macky Sall yéen kaay gi di Sud Quotidien Abbas Fall député nee na ñëpp xam nañu ne Ousmane Sonko toppi wuñu ko dara waaye nag ñi nga xam ne ko complot ñoo ñee la ñu war a topp yéen kaay gi di Source A nee na Ousmane Sonko suba ci alxames ji bu 12 heures jotee maanaam midi la ñu convoqué Ousmane Sonko altine ji nga xam ne moom la ñu génn la ñu jox Ousmane Sonko convocation mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall nee na Macky Sall daal lii nga xam ne moom la nekkee la war a bàyyee maanaam Sénégal sax nekk fi opposant léegi déli la moom Aliou Ndao nee na nag ma ngi jàppale Ousmane Sonko bu baax a baax a baax nee na Ousmane Sonko la faral ndax dañu koy jaay doole moom Aliou Ndao daat nay wax ne Macky Sall nag ma ngi làq di denc di protéger ñi nga xam ne dañoo sàcc milliards yu askan wi yéene kaay gi ñu xëy fekk fa may sa baawu nee na nag Macky Sall bu jéemee nag kale Ousmane Sonko waaw naan ko xaw ma doo dem ci ay élection présidentielle loolee mooy Sénégal tàkk na nag lu jëm ci wàllum ñettalu mandat Maysa Babou nee na loolee waxi dof la yéen a kaay di réew ko di jeex xëy duñu ñu secteur na ñu ñetti fan yi nga xam ne ñoo nekk ci aéroport yi ASECNA contrôleur yi nga xam ne nag ñoo demoon ab girawa seen directeur général dagg na seeni salaire yéen a kaay di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu fédération sénégalaise bu football ñoom nag nee nañu maillot Sénégal original yi 45000 francs lay jara yéen a kaay di sunu lamb xëy